mouvement yoonu ndaw dafa am benn geste boo xam ne dañ koy def defuñu ko nag ngir politique wax day leer waaye defuñu ko ngir awut leen dama jàpp ni te looloo am mouvement yoonu ndaw képp koo xam ne ñëw nga fii tey jii sa doom mi ngi ci biir mouvement bi bokk sa li nga xam ne danga koy doxal wala sa rakk wala sa càmmiñ kon loolu lépp bu yàlla dogalee tey mu am mouvement yoon ndax am fu mu toll fu mu toll nag weesuwul maanaam di defante lu baax depuis boobu ba léegi ba mu taxawee ba léegi du benn leader politique boo xam ñëw nga accompagner ñu ci lii ñuy def. Euh, dañuy jël nuyoo teg ko si loxoy sunu jigéenu bopp mu séddalee ma ko képp koo xam ne jigéen nga ci biir. bu ma jëlee nuyoo boobu ndax di lim ay ay tur day xaw a guddi te fi ne nii jot amut yéen a ngi nekk ci préparation tabaski nekk ci xale yi ak njaboot gi ak seen i borom kër waaye nuyoo boobu ma koy teg si loxo yi sama mag sama xarit mi soxna Anta Awa Diawara mu doon kenn koo xam ne li tax ma jël nuyoo bi di ko teg si loxoom tey dama jàpp ni dafee toogaale toogaale ñetti parti boo xam si côté mouvement yoonu ndaw responsable la si biir mouvement bi wëlbatiku mu nekk fi toogal fi Anta Diallo toogal fi Ndiémé mu garage toogal fi bi Ndiémé Niang ñooñu yor ay groupement nekk tamit si biir mouvement bi depuis ba mouvement bi doog a sosu ba léegi yooyu jigéen ñoo nekk si biir mu bi bu ñuy laaj natt nu yëkkati joxe dem ban yaatal ko ba tey jii macha allah gi nga waa mu santé délégation boobu macha allah lan àndandoo ñëw waaye ñoom tamit ma dinañ ko xamal ni. Euh, man Serigne Cheikh li may faral di wax sa jour si groupe bi kenn ku ne am nga féetoo waaye waaye man waa Moussante moom damaa féetoo ñoom ndax nar seeni doom danoo bokk si mouvement bi waaye bu ñu jugee ñoom jug nañ coché e bu ñu jugee dagg nañ carte de membre dugal e bu ñu def programme bi def nañ natt ñoom tamit seen deux mille cinq cent seen trois boo leen dikkee dinaa ko leeral ñi nga xamante ni ñoom tamit danoo bokk si mouvement bi ndax tamit. Euh, jëlaa kàddu di ko jox tamit njabootu waa Madina Fall euh, Madina Fall bu ma ko tuddee damay tudd Fallu tudd sàmba waaye dama ci boole sama yaay ji nga xamante ni euh, maa ngi jégalu euh, Ndey Fatim Ndey Fadal yaay booy maa ngi lay jox wàccuwaay bu baax ndax dama naan lam waxante woon na ñun da koo jëfee ba mu mu jeex tàkk ndax mouvement bi ay doomam lañ see bokk ay njabootam bokkoon ci ñoom ñi nga xamante ni ko lëkk na Fall ñoom ñoo taxaw ñoom sama yaay ji ni ma si Cheikh su looy ñu ngi si ndax du fekkee da ngeen a jug ngir jàppale suñuy doom ñun seen i ndey ñu ni taxaw na pour accompagner leen kon yaay maa ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla yéene gi nga am si mouvement yi ba nga ñëw dugal sa loxo yàlla boo si rëccul dara at képp koo àndal lu nuyu sama yaay bi maa ngi jégalu yaay Fall ah Yaay Fall moom neex naa présenté maa ngi lay ziaraat baax noonu nga mën a mel ndax Yaay Fall moom day civilisé waaw ah, yal na yàlla dafa jàmm waaw bu loolu weesoo may nuyuwaat jëmm yoo xam ne dama naan si politik ak si dox li yokk ak jigéen sa kaw sa kanam man a ñoom la woon. wax dëgg yàlla muy Fadio mii toog borom këram di Papa Ndiaye. Fatou Diop ne bu ma ko tuddee damay damay jël kàddu gi jox ko mu yóbbante ko si waa ah, borom këram Fatou Diop fu ma mus dugg si politik yéen waa musante a ah, waa kër gi dama leen koy leera billee ba taalaahi ci télé laay waxe maanaam moom sama ginnaaw lay nekk guddi ab bëccëg dem nañ ci élection yoo xam dañ doon wax ay prénage bu ñu dajalee li ñuy dajale këram la toog mu defal li muy defal mën a Papa Ndiaye def suñu prénage dem yóbbul ko ministre bi ba yóbbu ko ka nga si koo xam ne moom la ñuy sëkk di liggéey te depuis boobu ba léegi man kay man maa maa jàdd sama yoonu bopp rek waaye fu ma leen séeni day mel ni man maa doon seen borom kër day mel ni dama ne yendoo añ ñoom may jëlaat kàddu di ko jox koo xam ne dama naan tey alpulaar yi ne ci kees gépp dama naan ko toakaar gi nga nu mel ni am naar <laughs> muy soxna jay naa damaa bëgg kooku moom ngeen tàccu ma leen di xanaa xamoo leen ko waaye dimbalee ma ngeen may ma loolu loxo ci ñoom moo toll ni yool mën fa buran bu bula bi wallaay jim yàlla xam na ni euh, bu ma mosoon a tëgg làmb baa may dem di seeti politicien dama koy woo ni ko damaa bëgg nga diwee a juróomi kaa da koy diw ba mu fees dell topp ma ànd muy guddi muy bëccëg te ni nga ko gisee gëmul lenn lu liggéey waaw trois quarts la bu la jaayee tooma may ne moom jàll na lu ne man yenn saa damay occee ko di mu dékkee fa waaye euh, dani ma si loo nekk dama tay nekk su looy dox dama tay dox ndax sëñ Seex lii li ngay def defoo ko ngir ngir sal defoo ko ngir leen da doon def démb tey doo ko dikk kon soxna jay naa man sa ñëw gi dama ciy ferte dama ci am mbégte lool lii laa doon ñaan yàlla mooy dem ba nu yor suñu yëfu bopp mouvement bi nag li ko tax a jug dama koy répété waat pour mu ngeen déggaat ko bu ëllëgee ku ma si fekk te nga jàpp ni du nu politiciens yi ñu xew teraanga yi fi nekk billaay ba taala ay xale yu ndaw yi donc ñoo ko si jëngu ko du benn leader du Macky Sall du Sonko di Idrissa du kenn ku yëkkati juróomi dem jox nu waaye nag gëm suñu gëm gu suñu bopp moo waral ni ñun nag dañuy jéem a incha allah rabi samp suñu bopp dem élection 2024. waaye bu ñuy dem élection 2024 duñu si ànd ak kenn ku di yéen ñi suñuy jigéen ñi ndax mouvement yoonu ndaw la maa nag yoonu ndaw dafa am lu ko tax a jóg. mooy lan wax naa ko social dimbalante ki dem am na koo xam si biir mouvement bi da doon ngénte ñoo ji ngi ceeb ji ngi suukar ji ngi diwlin ji ngi lépp ban xëy dem yóbbul ko ko. am na ay mbër yoo xam ñi ngi si doon bëre doon dajale lan am dem yóbbul ko ko noonu lañ koy defee feneen feneen adduna deewa dunda am nag bànneex mi naqar te lu si xew rek mouvement yoonu la day taxaw te noonu nu koy defee nag si xanaa su suñu ñun suñu mënum jël noonu lañ koy defee suñu yaay yi. ndax xam naa ni yéen moom ay xew la ngeen di xew man man daje rek ngeen di def waaye boo leen di daje ban yëg ko ñun lépp luñ ci man lañ ko ci jàpp moo tax euh, daje bi ni yëkkati ak trang ak tuut kenn ku ne la kàddu nag après nga sànni ci jox leen ko ni sàkku nag ni ndox doonee ay xéewal yan na mbir yi doonee noonu si ñun te bu doonee xéewal yan nañ ko jariñoo ñun ñii ñëpp ci barke Seydina Mohamed sànq dama doo waxtaanal euh, Moustapha mii Alamine mu ni ma euh, sëñ Cheikh lii ñuy def est-ce que xam nga ne dinaa ci am yàlla man ko tey jii mooy taxawaayu arafa te jàpp naa ni euh, bis bu màgg la ma ci ëpp euh, profité nag ngeen ñaana ma yàlla bu déwénee ma yóbbu sama yaay màkka wallaay sonné na ko barke Cheikhul Khadim bëgg naa ko bu déwénee ci yéen sunu ndey yaa ngi ngeen de màkka ci barke Cheikhul Khadim ma ko man li ma ci li ma ci bëgg mooy fii nu koy defee bisu tey wii képp ku fi ñëw nga ñaan ci yàlla mbir mi am tànk kanam te bu amee tànk kanam wallahi ajim billahi doomu jullit laa te taalibe laa te xale bu ndaw laa xuma la ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk sama wet muy waa mouvement yoon da waaye man de ñaanuma yàlla di wor benn bépp yaay ndax damaa bëgg sama ndey te yéen ñii sama ndey ngeen ñaanuma yàlla war bépp soxna nax sama soxna dama koo bëgg dama koo nopp waaw loolu moom ma di ko xamal kon yéen ñi ngeen xam ne ngeen a ñëw àndoon ñun ci mouvement bi damaa bëgg mu doon loo xam ne lu leer naa ñu mouvement bi politique wut entre politicien politique wut nag bu ñu ko waxee maanaam ci gàttal wax ju yàqu la ndax am na loo xam bu ko bëggee dinañ politique. lii may wax Awa Diawara mi ay iti njab ay maanaam groupe am groupe am xam nañ ci dara président Inaakuwa ñëw na fi jël suñu photocopie carte d'identité ma fay ma dugal caution man Serigne Cheikh ndax dafa wax day leer ci télé laay waxee ban préparé am 10 millions fa yàlla nu commencé toj dëkk bi banque yi ubbiwuñu loolu moo nu tax jotuñu financement parce que Cheikh lu Xadim ba vocal yi ma vocal barki démb nee na rus naa te taxawaatata say jigéen waaye nagam neex na yàlla dossier yi traité naa ko ah, wax jooju transféré naa ko Awa Diawara ba dégg na vocal mi transféré naa ko a Diallo ni ko yéen a ngi dégg li ma wax buñ jullee ba noppi incha allah rabi dina ko valider. ma yëkkati jox leen ko te loolu ma waxoon tamit nagam soom na yàlla bu ma déewut dinaa ko ah, appliquer ba mu mat sëkk kon ci ka ci gàttal ah, foofu lay après nu continuer ah, liggéey bi lii nag waaw mouvement yoonu ndaw moo ko yëkkati may leen ko Masamba mayuñu ko ma Mademba mayuñu ko ñun ñoo ko mooma suñu bopp may ko sunu yaay pour lan événement julli gii kenn ku ne sentir ni yaa ngi noos sa kër ndax bis bis sunu boom loolu ko dundalee nit la doon rey par reyunu nit di rey ay xar nag kon war nañ teel noos noos googu na maa ngi ñaan yàlla yàlla doon mbégte su ñun yàlla nañ ko yàgg a teewe bu déwénee nag dama naan ah, awa jaawara ñaata xar nga bëgg sa koñ yóbbul waa keneen ñaata xar nga bëgg sa koñ yàlla ko yàlla def ci barke Cheikhul Khadim mouvement bi boo gisee ñu ni mouvement yoonu ndaw dox mbokk wax mbokk ànd doon benn te yàlla dafa bëgg kuy dox mbokk parce que yàlla dana kuy dog mbokk rek ma dog say mbir mais yàlla nañu yàlla boole su ñuy dox mbokk ak mboolem jullit ñu fi teew ak mboolem jullit ñu fi ñu ñu fi ñu fi ne. maa ngi leen nuyu ñëpp di présenté waat euh, di leen présenté sama bopp man la lamin maa dëkk randu leen maa sëñ Seex ñoo bokk fi ñuy liggéeye wax dëgg yàlla ma gis ko mu am pas-pas lool ci mouvement bi. un trois mun ma sëñ Lamine mun ma. mouvement bi nang gaara suñ fa nekkee wër na yàlla xoolal buñ tala liggéey sax maa moom Lamine mouvement bi lii ma ne ko sëñ Cheikh mouvement bi lii mënu ma lii mënu ma ku am pas façon nii ku ku jàmbaare ngi nii ci lépp nag parce que ñun ñaar ñoo nekk maa moom daanaka bu ñu xoolee lan moo ñuy tàkkalee wàcc dem këram mu dem sama kër parce que xam naa ko bu baax doxul si caaxaan parce que mouvement bi jaral na ko lu ne parce que lii mu lii ñu def nii teraanga yi ñu def nii politicien benn politicien joxuñu ko du Idi comme ni mu ko waxee cette fois ci ni mu ko waxee rek du Idi du Macky du Sonko ñun nag ànduñoo kenn mais képp koo xamante ni ñëw nga pour ànd ak ñun pour jël suñu mouvement bi yóbbu yoon jàppale suñu jigéen yi jàppale suñu yaay yi ñun dañuy ànd ak yow. Mhm. instant bi su loolu lañ lañ taxaw ni mais demuñu seete kenn dem neewuñu kenn kaa jàppale mais ku ñu ku ñu jàppale nag ñu jël. parce que dañoo yor ay yaay dañoo yor ay sœur te bëgg nañu xam nga ñu liggéey parce que liggéey mooy doxal réew. parce que bu ñu nee mouvement bi rek mouvement bi dañoo bëgg a liggéey liggéey rek moo ñu ñoom ñëpp. waaw maa ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm. tasul fayul tukki wul yàgg. yeey mu judd ni mu juddoo màggee ni moo màggee. waaye dindi la nga defoon na ca gën. sey si seex nee xul si seex nee xul baax lettre la fañ ko jànge bu ko wuute wax ju bon bu ko déglu gisal nit a la gis sopp la di la xool yey maa yërëm ku la bañ sa noon nelaw tey ak ak gannaaw suuba sa noon gis nga guddi tey waa guddi tey sa noon nelaw waa guddi tey sa kaay leen kan waay ku ci ma may tey sëñ Seexa ngoog doon Sega li yàlla def ci jaamam bañ du ko dindi xëcc bu daggul yàlla dogal sànnil sambal ta dajale géej gi yaa géej gi wa sànnil sambal ta dajale géej gi yaa ko moom moo tax boo ko laalee boo ko laalee dinaa la dër sëñ Cheikh Ngok hey ne baax yëg nit ñi nit ñi am nañ pour la goo xamante ni mën ngaa loué ay baas mën ngaa loué ay chaise may nit ak i noppam kenn mënu koo loué nga xewle nag ñu ñëw dafa neex parce que jékki-jékki gis pépp ni nit ñi rek loolu lu na sedd na xol daal waaw ci wax nag mouvement yoonu ndaw li lancement la rek film bi dikkagul kon ni ko sëñ Cheikh waxee déwén ku ne man sax maa yeew xar yi maa koy jënd maa koy yóbbu ku ne sa kër nag waaw ku na ma jox sa numéro téléphone bala ma fee jógee bala ma fee kite waaw dox wax na mouvement bi dem na fu ne moo ngi dem ba Daaru Salaam kër Issa fépp seen Cheikh jël Daaru solaam jox ma ko teg ko sama loxo ni ma géré ko am na ñoo fa mag fuuf nag mais tey suñ jëlee lii jox ma ko rek amaan na xañ na li ma ko wan la rek wala mu bëgg wala mu bëgg ma rek te yàlla tax te si làmb rek lañ xamante xam nga. di leen sant nag bu baax waaw seen teewaay seen taxawaay neex na ma lool waaw xam sama jékk gis geesoo gis la ngeen sourire rek sama xol bi day day mel ni lem waaw di leen wax ni nag waaw damay tënk kàddu gi xam ni may waxee nii sax ngeen xam ni Bamba mënul wax. teewaay bi vraiment suñu maman yi yéen ñëpp ñu ngi leen di ziara di yokk suñu kontante waaw di ziar suñu maman Awa Diawar di ziar bépp jeune boo xamante ne nii tey yaa ngi ci mouvement bi te mouvement yoonu ndaw ñor la. donc mouvement bi nag mooy comme li président wax rek donc dafa nekk loo xamante ne nii bu mu juddoo yàgg na yàggut mais ay jeunes yu gëm seen bopp ñoo ci nekk ay jeunes yu am conviction ay liggéeykat ay jaay jàng ba am ay master ñii ay licence ay caxarta maan donc xam nga y a tout type de jeunes dans ce mouvement donc aussi ñu gis taxawaay bi nga xamante ni le président sëñ Cheikh Niang mu ngi ko ciy def vraiment mu nekk jàmbaar dama bëgg ngeen applaudir ko parce que nit ku jàmbaare ngi bon vraiment lekkul bàyyi kenn lépp lu mu am mu ngi essayer pour nu mu ci joxe nit yi nu muy jàppale doomu aadama yi bon donc mouvement yoonu ndaw nag ñu ngi ci ay procédures yoo xamante ni nii vraiment pour ñu taxawal récépissé donc récépissé bi ñuy taxawal papier yooyu après tabaski bi ñu ngi ciy liggéey gi loolu ça nu nous permettre que mouvement yoonu ndaw ñu nationaliser ko au niveau national dans tout le pays ñu xam ni mouvement yoonu ndaw c'est quelque chose bu ñu écrit carte sur table donc loolu noonu mouvement yoonu ndaw mu ngi ci donc di wax ni que aussi y a de surprises parce que mouvement yoonu ndaw aussi bëgg nañu taxawal yeneen projet yoo xamante ni comme tey bépp jeune bu ci nekk wala bépp maman bu ci nekk ay partenaires yoo xamante ni hôpital régional la ñuy liggéeyee jeune bu ci nekk feebar wala maman bu ci nekk soxla besoin médicament mouvement yoonu ndaw dafay pare pour ñëw dimbali la. donc mooy comme li président wax rek mouvement bi ay politique ak yooyu tax koo jug mais ay jeunes lañ yu am conviction bëgg a defar seen dëkk bëgg a defar Sénégal loolu moo ko tax a jug ñu ngi leen di santaat di leen gërëm donc di leen wax nii. mouvement yoonu ndaw daal mooy mouvement bu baax bi ñu ngi woo ñëpp suñu yaay ñu ngi woo bépp jeune boo xamante ne nii tey bëgg nga développement ah bëgg lu baax ñu ngi lay woo nga ñëw rejoindre mouvement yoonu ndaw ñu ngi jaay suñuy carte membre 500 donc du coup loolu képp ku mu intéressé waa bureau bi aussi ñu ngi ciy liggéey donc aussi tamit mouvement yoonu ndaw mu ngi def chaque vendredi chaque vendredi ñi ci nekk y' presque plus de 300 personnes 400 ñu ngi joxe 250 250 boobu noonu loolu dañ koy denc pour di jàppalante suñuy biir voilà parce que bëri na ay mouvement ñu ngi fi donc xam nga ñu ngi wax doo comprendre mais mouvement yoonu ndaw bii donc c' est quelque chose de sérieux ay caaxaan nekku ci donc xam nga benn fokat nekku ci benn caaxaan nekku ci. mais daal bon dëgg moo ñu tax a jug ak la développement surtout Thiès bon parce que Sénégal metti na maman yéen ñi nekk ci marché bi yéen a ko gën a xam Sénégal boo yóbboo junni léegi billaahi doon dugg wóor na yàlla réew bi metti na. donc xam nga nit ñi ñu ngi feebar ci hôpital yi amuñu lu ñu fajoo donc xam nga suffisance alimentaire yooyu yëpp donc daal ñu ngi leen di woo en fait di leen wax daal pour ngeen ñëw ngeen gën a jàpp. ginnaaw ba ma sant yàlla julli sant bi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba si kanam di nuyu ñu fi nekk ñëpp di leen siyaar bu wér di sant sëñ Cheikh ñaa bu baax a baax ndax sama combat la si billaahi yu bëri la may jëndal di ko sant bu baax a baax a baax di sant mu ndaw di leen sant bu baax di leen gërëm parce que gis naa seen taxawaay quoi barki sëñ Fallou gis naa seen taxawaay bu baax di kontaan tamit parce que daanaka li nga ma defal amul ku ma ko defal fii barki sëñ Saliou am na ñu ma gën a jege sax defal luñ ma lool di yëkkati seen xaalis di ma may di ma defal lu ne tëgg ma fi ay combat tamit waaw te amaana sax am na ñeneen ñu ko mën a defal mu defal ma ko sama jëmu ji xeebu gi kon di ko sant bu baax a baax. di sant ñëpp di saare ñëpp di sant tamit sama waa koñ baax a baax a baax sama papa yi di sant sama bàjjen yi di sant ñëpp di saare ñëpp di sant sama booy ma àndal fii tamit. sant di leen jaajëfal ci teewaay bi ngeen teew fii di leen remercier waat bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ñun tamit ndax saa suñu wootee rek lu mel nii ku ci nekk bàyyi li nga jàppoon daal di ñëw teew. ndax kenn umbulewul jamono jii fii nu mu sësee tembe tembe tabaski kenn ku nekk rek ci ñun am na loo bàyyi lu solo daanaka. waaye nit moom ku nekk ci la nga nekk rek fi nga ko teg saa bu wootee rek lam la jaral rek da ngay bàyyi ci la nga nekk yëpp ñëw demal loolu kon amuñu seen fay encore une fois yi di suñuy yaay mag suñuy rak ak suñuy grand de at ba tey que ni mouvement yoonu ndaw depuis ak mouvement yi ak li xew ni yëpp arrêté wuñ jéego ñu doon dox ñoo ngi ci tànk ñu daan tànk yi jëmale kanam ba léegi sànq rek am na ay waxi biir yoo xam ni waxtaan nañ ci ak tafa ak gaajo loo xam ni daanaka rek moo ñuy officielal nga xam ni ñu ngi ci cappaandaw gi donc jamono ji légitime nañu waaye ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi tourné vers ñoo ngi va légalité loo xam ni xam nga lu légitime mooy loo xam ne société bi nangu lu légal nag mooy loo xam ne ce qui est valable aux yeux de la loi loolu tamit ñu ngi ci ci ay jéego yu am solo di dalal seen xel que ni ñun caaxaan tax ñoo jug waaw comme ni ko suñ see waxee sànq rek président ak Tafa Gadio mi mouvement Yonda moom ñëpp la fi nekkal parce que dañoo jug pour def développement communautaire te te qui parle de développement communautaire wax ko wax di nga jiital ay femmes ndax jamono ji ñoo yor lépp développement foo foo dégg ñu ne lépp lu sotti rek jigéen am na ci loxo donc di leen di seen xel yéen ñi suñu yaay wax leen projet bi yéen vous êtes au devant de la lutte quoi yéen la gën a du man yéen la gën a favoriser sax mais yéen a ci nekk lépp ndax ku wax développement communautaire rek ci yéen lay jëm donc di leen seen xel que ni bi mu ngi ci ay tànk yu am solo am nañu ay partenaire nag yu bari yoo xam ne ñoo ngi ñëw waaye nit moom loo loo sonnul rek doo ci jariñu kon di leen ciy soññaat bu baax ngeen gën a jàpp gën a jëf. Euh, di commencé suñu yaay yi waaw wax ni nag ndit si lépp la nekk rek te nga si woote ji ji say kilifa wala ñu la mag di leen si wuyu si loolu amatoo loo ragal waaw ñun moom mouvement bi ba ba muy doog a la woon mais sant yi dem na batool toll foo xamante ni nekkatu sax mën naa ni amu ah, mouvement bi nag ba mu doon doog a door nekkoon loo xamante ni bari woon na noonu waaye peut-être dëgguwaayam wala taxawaayu ñi nga xamante ni ñoo ko sóob moo indi fii lii lépp te nit si lépp lay woote sans yooyu geesoo gis ñoo xamante ne say kilifa lan ñii say bàjjan ñii say nijaay ñii say mag waratoo see ragal dara parce que loolu jàpp naa du lu ñàkk fayda tey amaana loo xamante ne si nekkoon ku nu du duñu gis ñi nga xamante ni jege nañu lii nag da mouvement boo xamante ni yoonu ndaw la tudd mais dafay dem au delà de son nom dem na ba romb foofu ndax doon na loo xamante ne instant yi mag ñeet ñëpp si bokk di woo nag waa zone Thiès ñëpp koo xamante ni rek yaa ngi fi te bokkoo fi nga ñëw adhéré parce que ñun nous sommes pas de personne on milite pour la jeunesse dañ fay nekk pour réew mi nekk fi it pour jàmm dëkk bi nekkuñu fi pour xeexal kenn aussi tamit comme ni ko Tafa Gadio waxee sànq je peux dire que ni nous sommes apolitiques nekkuñu fi pour xeexal kenn mais nous sommes la pour cultiver la paix jàmm dëkk bi. danoo nekk fii tamit aussi tamit pour ñi nga xamante ni lépp loo xamante ni ça touche social ñu koy def li firnde la te c'est pas la première fois. te boobu ba léegi amul kenn ku mën a taxaw ni loxoom mi ngi si wala taxaw na jàppale ñu si wala ñu laaj ko ñu laaj ko soutien loolu lépp mi ngi dem si suñu propre moyen te loolu idée boo xamante ne la si mouvement bi la génnee à chaque vendredi ñu def suñu cotisation loolu moo ñu permettre tey ñuy def lii lépp voilà quoi tey di ñaan ñëpp koo xamante ni daal yaa ngi si nga gën ñoo ñaanal gën ñoo liiwal pour ñu gën a mën a dépasser lii parce que lii début bi la rek nekkul nag lu ndaw mais xeem nañ ko suñu objectif dépassé na fii suñ sañu mouvement bi day am njariñ njariñ li mooy lan damay quota ku si nekk ji si sa bopp ku si nekk maam ñu fexe ba nga dugg fenn am looy def te loolu maam doole moo koy def ku nekk gañee si va mouvement yoonu ndaw ñoo yëkkati tàng gi jox ko Awa Diawara mi nga xamante ne mooy secteur mu ñuy sàkku nag euh, liñ ci jublu mooy ñaan nga ñaanoonu yàlla ñu ñi nga xam ñooy mouvement yoonu ndaw jeunes yi sunu moom defal nu feex ba bu déwénee dañuy jël ay guum yu bari jox la ndax li may faral di wax rek macha allah yow ba duggee ba léegi a ah, arrière benn yoon yaa ngi guddee ba bëccëg yaa ngi vocal yaa ngi waxta xalaat yaa ngi joxe ca cotisation dagg carte de membre daa mujj sax dem ba jël ay carte de membre yu bari ni bàyyi ma dem yóbbu ko ci marché bi jaay ko kon wax dëgg yàlla lii ñu def ñu ngi ñaan nga ñaananu ni boisson king bii neexee yàlla na mbir yi neexee noonu ndox mi ni mu doon xew a yàlla na yëpp yëpp xewale noonu bisimilah kàddu gaa ngoon bisimilahi rahmaani maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku lim rek juum waaye maa ngi nuyu sama waa koñ bi nga xamante ni lépp lu ma nekk rek ñu ngi si fépp fu ma leen woo tamit ñu ñëw ànd ak man sëñ Cheikh li ma la waxoon rek mouvement bi xale yi macha allah am nañu jom te ba jàppee ba tey bàyyiwuñu boobu ba tey ñu ngi si lu nu am ñu ngi si di dimbali waate koor yi tegi def nga ko koor gi def nga ko macha allah tey tamit nga defaat nii ñu ngi ñaan si yàlla bu dewee ne yàlla nga mën lu ko bu déwénee yàlla nga joxe ay xar si barke Seydouna Mohamed si barke Arafat gii si barke Seydouna Mohamed. nee na Diouf Diouf waay maa ngi lay ziar bu baax ngay ñëw ñoom ñoo nekk secteur Madina Fall yor tamit ama euh, fan si club bëgg a bari ñoom Falloot ak ñoom Samba yor ko. wax dëgg yàlla comme ni ma ko doon waxee sànq rek depuis boobu ba léegi ñoom tamit sama ñoom yaay ñi ñi ngi bay seen wàllu yaatu te incha allah rabbi bu julli gi jàllee dinañ fa ñëw seet si leen inaa fa yeneen yoo xam ne ah, loolu moom si prison ko def suñu diggante ak yéen kon yaay booy nga ñëw ah, sama yaay booy juufa ñoxo baa ngeen taxaw am kàddu yee bisimilah a si ñëw ñoo taxaw yaay ñoo juga yaay booy yaay booy bisimilah bisimilahi rahmaani rahim waaw dañ leen di sant rek sant gi nag moom di ci jiital sëriñ Seex ndax lii lépp moom la ndax moo ko boole xale yii xale yi nga xam ne amuñu mënuñu keroog rek lambis kii bi foo gabari bii dangaa ñëw nga indi fi sa doole ànd ak xale yi ñoom ñëpp lii ñoom teraanga jii duñ ñu guleet yal na teraanga yàgg seen loxo ñoo ngi leen di ñaanal ci barkeb Sëriñ Touba doole maam Cheikh la foo leen bëgg a egg yal na leen fa yàlla eggale ci barke Seydina Muhammad waaw ñu ngi kontaan tey ndax yoonu ndaw moom dépuis ci commencement bala ba léegi ndax bañ ne jënd leen badge dañoo jënd suñuy badge ñëw toog te sëñ Cheikh démb ci guddi daa ñëw ba sama kër wax ma ko ne yow boo amul kenn du am lu mu ci mënti doon day ñëw ba sama kër ne ma suba am nañ nangam te incha allah bu ne suba am nañ nangam mën ko dinaa ci teew di ko ñaanal rek ndax sëñ caa sëñ sëñ da moom ku baax la ku baax la trop ku yéwén la fu ma seen mi ngi may tiitoroo fu ma seen mi may yëkkati waaw te mënoon maa romb rek dem yoonam. waaw waaw fu ma toll mi ngi may tiitaroo may sagoo di sagoo sama borom kër gi. bisimilahi rahmaani rahiim ginnaaw ban sant yàlla julli ci yoonante bi dañuy amaan mbégte lool di amaat kontaan tey ci geste bi nga xamante ni waa mouvement yoonu ndaw tey def nañ ko. en tout cas seen président Serigne Cheikh Niang mii di wax ak yéen di président mouvement yoonu ndaw en plus mi le promoteur de la jeunesse mbégte googu tey moom dama ko am bu baax a baax a baax ci euh, taxawaayu Arafat bii nu ko defee ñuy ñaan lépp loo xam def nañ ko ci yal na ko yàlla nangu te bu ko nangoo yal na ko yàlla wisaare ci réew mi di ñaan jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement yoonu ndaw tey xel war naa daal ndax loo xam ne yaa ngi ko def si sa def sa coobare bopp si sa doole bopp si sa poosu bopp kon jàpp naa ne kenn mënu laa tënk si loo xam neex na leen wala wala wala dañuy takk buumu jaam. tey dama naa ñoom moom suñu liberté bopp ndax liberté bopp weesuwut ah triangle gi fi def tey jii ni mu bëree ak ni mu toll ak ni mu néewee lu mu mënta doon rek génn si benn poosu kenn suñu poosu bopp lañ ko jëlee. kon mbégte googu am nañ ko may nuyuwaat bu baax ah, ñi nga xamante ni muy ah, bureau bi nga xam ñooy liggéey ci mouvement bi. nuyoo boobu di ko jox Alioune Diallo ah, di président chargé communication di nuyuwaat Baye Bass trésorier. ki nga xamante ni mooy ma Diop secrétaire di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy présidente euh, mouvement yoonu ndaw Lébu Ndooy di nuyu Tafa Gaajo mi nekk mi di nuyu tamit ah euh, sama waa ji bopp ji euh, nekk ni Lamine macha allah di tamit nuyu Lamine Diouf gaa yëpp maa ngi leen di waa ndax ñoom ñëpp macha allah kenn ku ne jug nga ñëw si. waaw def si sa doole def si sa ñàkk def si sa jëmm waaw mbégte googu na moom da naan am na tàmbale waaye amu fu mu yem wax dëgg yàlla ñaan naa yàlla nag. Euh, bu déwénee yal na nu yàlla gën a dolli suñuy poos yi dara ban mën a yeewal waaw mouvement bi ay xar beneen bi nag euh, appel bi may lancé mooy mouvement yoonu ndaw moom nii rek lay yàgg a def depuis avant koor gaat yooyu yëpp euh, sociale bi nii la yëkkati sunu temps nga joxe ko te yàlla tax di si sàkku ndax fayu fayu bi yàlla ndax fayu yàlla moo gën fu fayu nit kon ñu ngi lancé waat appel mouvement yoonu ndaw jeunes yi nga xam ne dañoo nekk si biir dëkk bi nañ ñëw jéem a bokk ndax du daray politique waaye lépp lu ko laal muy social ak développement social ak tamit defar suñu réew réew na boo si bokkee da damay bañ naan man defuma ndax politiciens yee fi nekk wala état fi nekk damaa jàpp kenn ku ne bu jugee bay sa waar comme ni sëñ Cheikh Niang di bay sa waar waa mouvement yoonu ndaw di bay seen waar jàpp naa réew mi dina jagta duñ tudd président loolu la mouvement yoonu ndaw jug fii seen seen taxaw di lancer waat appel ñu ngi dem 2024 incha allah rabbi pourquoi mouvement yoonu ndaw du dem accompagner ak ñi nga xamante ni am nañ ay ambition ci jeunesse bi am nañ gëm-gëm si jigéen ñi am nañ yërmande mouvement yoonu naw daal ci loolu la préparé te incha allah rabbi comme ñu ngi jëm si tabaski lii ñu jot a def tabaski gi la boo jox ko ñi nga xam ne suñu bopp lan ndax tamit dañoo am ay groupement yu ci nekk ay femmes yoo xam ne macha allah dañuy ñëw di jaan doole di liggéey ñu jàppale leen ci kër gi waaye loolu nag moo war a tey ji mouvement yoon ndaw di amaa mbégte di amaa sant di amaa ngërëm euh, mouvement yoonu ndaw boo laajee gestes yi nga xamante ni da koy def li ci ëpp social da ciy bokk social nag donc euh, dama naan euh, euh, ku amu fit doo ko def ku bëgg lu baax doo ko def ndax làmm sa pos joxe as góor moo koy def wala ku tabe wala ku nangu li yàlla dogal kon bu lii amee tey ay jeunes di nangu lamp seeni pos di participer ci li nga xam muy ci développement di participer ci li nga xam ne mooy social kon kooku damaa jàpp ne waxuma la opposition wala kenn waaye état da ko wala accompagner mouvement yoonu ndaw mbégte googu daal la am tey mooy geste bu yi nu def tey muy geste noble waaye nan jàpp ni du kenn koo xam taxaw nga tey accompagner mouvement yoonu ndaw suñu poche bopp la. waaw euh, euh, loo gis ne rek damaa jàpp ni politique la kër sax boo ko dëkkee yor ay njaboo il faut nga politique seen biir ba la nga bëgg ñoom ñu topp la si. waaw dafa wuute nag si politiciens yi a léegi politique bii may gis man ak politique bii ñuy doxee ñun dafa wutee ndax ñun politique bii nuy def dañ ko fii see ne def si kaadal li nga xam mooy yee ndaw ñi tàggal leen jaar leen si yoon boo xam bu ëllëgee avant ngay am yi soxna wala nga doon responsable sax wala ngaa mën a mën a sa bopp jàpp ni yow bokk nga ci ñi nga xam mooy ñi fay dëkk bi am jàmm ñi nga xam ñooy def social. Ah, ah, boo gisee tamit ni woo média di ko wane nii pour dañoo bëgg. ndaw ñi mel ni man wala ndaw ñi waaw waaw ndaw ñeneen ni ndaw ñi nga xamante ni euh, def lu baax buñ ko wékk ci politiciens yi def lu baax buñ ko wékk ci sëriñ yi def lu baax buñ ko wékk si imaam yi képp ko xam jung nga doon jeune di liggéey jàpp naa loolu naan asaka wala ngay liggéey jàpp naa loolu naan sarax wala nga naa génn sa alal dem di ko servir ñi nga xam ñoom yàlla dogal nga ëpp benn dayoo bi wala ëpp leen benn ah, sa loxo jot seen sa loxo bu ñu jot seen ginnaaw nga dimbal leen geste boobu la ñuy def waaye du geste carrément politique ndax jamono ji loo médiatique rek dañuy jàpp ni politique a tax nga koy médiatique waaye ñun lii ñu def dañuy bëgg jeunes yu mel ni ñun wala jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg def lu baax te ñun en tant que sëñ Cheikh Niang du politicien ku ma xam di nga xam man ouvrier la damay liggéey promoteur la kon geste bi moo koy def damaa jàpp dama ko war a def. waaw waaw euh, euh, du ci mën a ñàkk ndaxte suñu sorti barki dem bi dama naan sax dafa am leneen lu ma jural ndax leneen lu ma jural du cadre politique la ma jural damaa jugal jugal ni ñun bokk nañ si ñi nga xam ne biir kees war nañ fay mën a teg benn symbole boo xam ne askan bi man bu ëllëgee ku fi jaar dina xam lii kat mouvement yoon yoon ñoo ko fi teg loolu na du politique. loolu tamit wane wu taxu ñu organiser nee naa ci biir koor gi def nañ ay dons yoo xam ne dem nañ def ay mame du cœur joxe na ay suukar koor kilifa yu bari télé laay waxe waaw non loolu loolu ci politique. loolu damaa jàpp ni waaw jàpp man sax damaa ne loolu mooy dëgg mooy social la te ki nga xam ne moom moo tax nu bind li muy Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a jàpp ni nit boo ko tenee da nga dimbali ko loolu politique. comme yàlla dogal na ñu am ñi am ak dërëm ak ñaar dërëm xaw naa noo te ne tuuti yenn nit ñi ñu ni suñu alal bi nang ko jéem a bokk ak ñooñee loolu nag damaa jàppoon du politique na politiciens yi ñooy ñëpp mel yu mel nii soxla dem woo nit ñi jëngi leen ci cadre waaye ñun lii ñuy def dana bëgg suñu mënum jeunes yi buñ ko gisee xam ni ñun xaaruñu si politiciens yi leen danoo bokk nag yoon lii ak politiciens li ñuy doxee danoo bokk yoon waaye bokkuñu ay vision yoon na boo ko bokkee nit kii mën naa xool ndar te jaay yoonu ndar waaye nga xool yoonu ndar gi yaa jaar waaye yaa ngi tey invité ak leneen waaw looloo war a daal mouvement yoonu ndaw euh, di def social bu mel nii. santaat yàlla bu baax julli waat si yonent bi di santaat si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di sant sëñ Amet Sugu sama sëriñ di ñaana sama waa waajur bii fi dese di sunu borom bàyyil nu ko fi. mu yàgg fi ba sama yéene si moom sunu moom may ma kattan ga xéwal ga ma def ko njaboot géet ñëpp waaye di sant waa mouvement yoonu ndaw di sant euh, euh, Mamadou Seck mi nga xam mooy président tailleur bu kees wax dëgg yàlla macha allah ma euh, télém bi RTT bi muy télé askan yoo xam ne macha allah nee naa lépp loo xam ne tamit luy rafetal ak luy dox si dëgg rek boo jàppee RTT TV di nga ko si gis maa ngi amaat mbégte loo tey ñaan jul gi nu jëm yal nañ ko fekkee te buñ ko fekkee yal nañ ko tal te buñ ko talee yal nañ sama ndara ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul du nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp tey ñaan yàlla réew bi yàlla na fi suñu ba jàmm